boo julli woon gee gannaaw ba waxtu wa jotee gannaaw ba nga xam ne kat na nga jullee woon gee ga kat baaxutoon kon bu fekkee gannaaw ba defoon nga safaak wetarit say boo boo baamoo gee ga ba noppi nga baamuwaat safaak wetar fajar fenkee rek moxtaarum wetar jeex na daroor yi moom tàmbalee ci fa fajar fenke ba ba ngay sëlmal julli suba li tax ñu wax ba ba ngay sëlmal julli suba mooy su dee yow dong yaa doon julli suba fàttaliku ne yow kat wetaroo woon te waxtu wa yaatu na kon dañu sopp nga dagg julli suba ga daal def safaa teg ci wetar baamuwaat ñaar rakkay fajar doora julli suba nag ndegam waxtu yaatu na noonu ngay def loolu mooy kenn rek ku doon julli ba tey nee nañu bu dee maamoom mbaa mu ilimaan it wax ji gën a wóor mooy ku ci nekk sañ ngaa dagg julli suba ga ndegam na ngaa fàttaliku wetar def wetar ba noppi doora ñëwaat ci suba gi am na sax ñu ne nañ soppe woon ci kenn rek mu dagg julli suba ga ndax wetar noonu lañ koy soppe itam ci kay jiite ak kañuy jiite muy ma moom ñoo ci yemoo su fekkee ilimaan da doon jiite julli suba nag fàttaliku wetar buñ nee sañ naa dagg mbaa sopp nañ ci moom mu dagg julli suba ga dellu ci wetar dañoo wute ci dañoo wute ci kamu doon jiite mbaa ñamu doon jiite dañu dagg tàmbaliwaat julli suba ga am ilimaan day wuutal balaa dem wax ji gën a wóor nag mooy day wuutal balaa dem su fekkee nag aada woo nga di yeewu ci guddi gi di julli sopp nañ kon wetar nga di ko yeexe ba boo yeewoo ci guddi gi door koo def ndax li addis ba ne woon ijxalu axira salaatikum minal leyli witran su fekkee nag sag yow ci guddi gi wóorut kon bala ngaa tëdd rek say boo naafila la ngay naafila wetar boole ca boo yewoo ci guddi gi te sawar nag da nga mën a julli ay ñaar ñaari ràkk rek te bañ a baamuwaat wetar ndax addis boo wax ne laa witraani fii lay la sib nañu nag nga tey ko yeex a wetar ba fajar fenk nga xam ne kon wanaa imun aji nelaw anhu walis wetar li sathin fa juróom ñaari ràkka yashfahu day safaa wayut doxu tamit toxal al witra wetar wal fajra ak fajar wa subaxan ak suba mu ne ku julli woon gee daldi nelaw wétarut ba mu yeewu itam fekk na fajar fenk mu door a yeewu kon su waxtu wa yaatoo amul luñ cee wax bu waxtu wa xatee nag waaye xat ga téewut mënees na faa julli juróom-ñaari ràkka te gis nga ne moom defutoon safaa wetar ndegam juróom-ñaari ràkka xaj na ci waxtu rek kon yëpp lay def day def safaak wetar muy ñett mu teg ci ñaar rakkay fajar bu ànd ñett ñee muy juróom mu teg ci ñaar rakkay suba wal xam si bu waxtu wa yaatoo ñeel juróomi ràkka wal arbaxi ak ñeent fash fax na nga safaa wa awtir te nga wetar suñu seetee nag ba mu yeewoo la des ci waxtu wa ñu mën faa julli juróomi ràkka mbaa ñeenti ràkka te fekk moom julliwutoon safa ak wetar dañ ko wax ne ko kon ndegam juróomi ràkka xaj na fi da ngay julli safa ak wetar muy ñett nga bàyyi nag ñaari ràkkay fajar ba naafi la dagan nga fay leen te daldi julli suba ndax ndegam juróomi ràkka rek moo fi xaj mbaa ñeent defal safaak wetar muy ñett bu fekkee juróom xaj na ca ñu julli suba kon ñaar xam ne suba léppam dana dugg ca waxtoom su fekkee ñeent rakk moo fa xajit da ngay julli saka gotar muy ñett rakk nga dugalal benn ba suba balaa waxtoom a jeex nga xam ne boo koy àggalee rakkaam ba des dana fekk waxtu wa jeex waaye rek dugalal nga ko benn rakk ci waxtoom kon baax na yépp nag fajar moom na ngay bàyyi ba waxtu naa fi la dagan nga daal di fay ñaar rakka yi fajar dañuy wax ni sax bu fekkee ba mu jullee gee jullee woon na ñaari rakka te woon ca mën naa jàppe loolu safaa rek nga xam ndegam bi mu yewoo ci waxtu fajar wi la des ci waxtu wa juróomi rakka la mbaa ñeent day def rek wetar kese day loo safaa jëm defoon ca ba mu jullee gee sore nañ waaye na ko doyloo rek te julli wetar bu noppee teg ci ñaar rakkay fajar teg ci suba nga xam ne du waxtu yaatoo ba juróomi rakk xacce moom bu defee benn rakk wetar teg ci ñaar rakkay fajar teg ci ñaar rakkay suba day yem ci juróom rek su fekkee ñeent ci xaj nag moom mu jàpp ne defoon na safaa ñu wax ko ne ko loola doy na da ngay def wetar rek kon dal cee teg fajar muy ñaar kon ñett wéy na ñeent yi kon benn rakkaa des mu dal koy dugalul suba ci waxtoom balaa waxtu waa jeex nga xam ne rakka ba ci mujj moom ci suba gannaaw bu waxtu wa jeexee la koy julli kafis salaasi niki bu waxtu wa desee ñetti rakka aw tiir wetaral wa axirte nga yeexe fajran fajar la des ci waxtu suba bu fekkoon ne ñett rakk lañ fa mën a julli kon day bàyyi safa def wetar kese kese muy benn rakk mu julli suba ñaar mu dal nekk ñett fekkoon ñett xaju ci nga xam ne ñaar rakk dong moo ci xaj nag moom dañ ko moomale suba dem bàyyi wetar xam ne wetar tey raw na ko ba geneen guddeeti ni ki ba mu yowoo xool rek di des ci waxtu suba wi ñaar rakk dong lañ fa mën a julli kon day gaaw rek julli suba kese xam ne wetar moom raw na ko ca goo guddi ba génnee nati ñaar rakkay fajar yi nag waxtu ñu waxoon ne ca la naafili dagane bu ci àggee mu mën na koo def mel ne kuy fay da ca dale ba tisbaar jot diggante bi bu fu jullee ñaar rakkay fajar rek mu baax wa tax mu naa wabda na nga tàmbali bi subhin ci suba lis na tey ni fade sug ñaari rakka dong waqdi ta nga fay alfajara fajar mislal fardi kem farata ila zawali ba tisbaar moom daal boo biddantee ba la des ca waxtu wa ñu mën faa julli ñaar rakka dong da nga koy moomale julli suba julli suba dong wetar moom nga xam ne raw na la ba geneen guddeeti ñaar rakkay fajare nag moom waxtu naafi la daganee la ci dolli ba tisbaar mën nga koo fay ndax nga dolli ku tuyaaba waaye nag fay ga warut bu tisbaar yee nag te fayoo ko nag jeex na ëllëgati rek doo mën a am ñaar rakkay fajare ci bis booba mu jàll si ci xiit taaniyuha aji ñaaril seen alxiidu mooy xiit xalal rijaali moom sunna la ca góor ña min waqti xilli nafli tàmbalee ci waxtu daganuk naafila li zawaali ba tisbaar xiit mooy julik korite ak gu tabaski ñoo yemoo daraja seen waxtu mi ngi tàmbalee ci bu naafila daganee ba tisbaar jot diggante boobu mooy seen waxtu nga xam ne bu tisbaar xasee jot jeex na ku ko julliwutoon doo ko mën a julleeti moo xam korite la moo xam tabaski la bu ñu nee julli gi it sunna la nag dañuy wax ne sunna la ci ku jumaa war ku jumaa war nag mooy koo xam ne góor la te gor la bu dee jamono yi ñu daan teqali gor ak jaam di mukallaf dëkk ca dëkkub jumaa ba wala boog soreek lu tolloog ñetti mil rekk kooku la julli jumaa war ba tey kooku nag dañuy sunnaal ci moom julli korite tabaski bu dee koo xam ne nag julli jumaa waru ko am nag teqale ndax bu dee jigéen dañuy seet ba xam bu dee jigéen ju mag ja nga xamee ne góor ñi duñ ko geesooti moom mën naa julli ji korite tabaski bu dee ndaw lu jigéen loo xam ne amul taar bu tax góor ñi geesu ko te it waajul waajtaay wuñ koy geesoo ba tey kooku mën naa julli ji bu dee jigéen ju ndawe nag toolu ci ñu koy xool mu am taar boole ca mbaa mu waaj boole ca kooku day araam moom mu dem ca jullit korite ga mbaa jullit tabaski ga gone nag ak kuy tukki koo xam ne yéenewute sax foofa ñeenti fan daañu sopp ci ñoom kon ñu julli ji jullit korite ak tabaski ku dikk fekk mbooloo mi sëlmal ñu sopp nga julli ko yow dong ki bu ñaar ñëwee mbaa ñett gannaaw bañ jullee ba noppi dañu bëgg kenn ku ne beru julli julli boppam tañ bañu defaat meneen mbooloo ndax sib nañ ñu defoon mbooloo dellu ko defaat te ñoom fekk nañ mbooloo mi julli ba sëlmal mu kabbiran muy aji kàbbar sittan juróom benni kàbbar siwal ihraami lu bokkut ak kabaru armal ga wa sitatan ak yeneen juróom benn fi tilwi ca rakka ba topp bil xiyaami ànd ak kabaru jóg ga julli korite mbaa tabaski moom bu dee rakk bu njëkk ba gannaaw boo kabare kabaru armal da nga ciy teg juróom benni kabar mu juróom ñaar muy ràkka bu jëkk ci ràkkab ñaareel ba nag boo jóg jëm ci ràkkab ñaareel bi da nga wax allah akbar boo weesoo booba nag da nga cay tegaat juróom ko defee mu juróom benn ba kabara kabar na al ma moom ma moom ma i naqsu ndéem ak wàññi sadaxa xarana muy feeñ na dañu bañ ci naxu nag i naqsun sadaxa mbaa in sadaxa naqsun te jublu ci naqsun ji nga xool ci sa bët loolu gëstu la boo xam ne ñi yittewoo naxu lay yitteel ilimaan ji jiite nag ci korite mbaa tabaski bu kàbbare yenn kàbbar yi am lu mu ca fàtte daal tàmbalee jàng kon na ko maa moom sàbbaal ndax mu fàttaliku ne am na lu mu bàyyi ci kàbbar yi su ko fàttalikoo te def ko baax na su ko fàttalikuwul nag ba def ko na ko maa moom moom def du tee nag bu ilimaan dee sujjóot ndax bàyyi gam bàyyi benn kàbbar mbaalu ko ëpp maamoom mi day ànd ak moom sujjóot teyit na nga seetlu foofu ne kàbbar yi ñuy kàbbar ci korite mbaa tabaski dañ leen a fonk lool boo weesoo bu jëkk ba itam yee ca topp dañ leen a fonk ba benn képp ku ko ca bàyyi ñu digal ko sujjóot xabla salaam su ilimaan bàyyee nag benn kàbbar mbaalu ko ëpp ñu sàbbaal ko sàbbaal taxul mu def ko na ko maamu ñoom def te lu tee nag gannaaw ba su ilimaan fàttalikoo ne bàyyi woon na kàbbar ba tax muy sujjóot xable salaam du tee ñu ànd ak moom sujjóot ba tayit bu fekkoon ne ilimaan moom ay kàbbaram mat na maa moom kay moo manqué lay kàbbar ba tey ilimaan gàddul na ko kàbbar yam bàyyi mbaa bu dee benn boppee benn daal lu mu bàyyi ci kàbbar rek moom maa moom ilimaan gàddul na ko ko su ilimaan fàttee ci kàbbar yi benn mbaa lu ko ëpp nag ba tàmbalee jàng ñu daal di koy sàbbaal mu fàttali ko daal di def kàbbar ya dañuy bëgg mu baamuwaat njàng ma bu kàbbaree ba noppi mu baamuwaat lam jàngoon bu ko defee nag ñu digal ko sujjóot bax de salaam ndax baamu gam baamuwaat njàng ma ñu bañ a fàtte ne kay julli julli xiit gi moo xam kenn la moo xam maamoom la bu xasee sëgg jëm ci rukkoo ba rek kabar ba mu fàtte woon du ko mën a defati da koy bàyyi rek te sujjóotal ko xabla salaam ndax sëggam sëgg jëm ci rukkoo ba rukkoo farata la te deesul bàyyi farata di dellu ca sunna wa in yasit ndéem dafa dolli imaamuhu ilimaanam ba lam yu taba defu ko topp man na it lam yat tabian kon du ko topp moom maa moom ilimaan wax nañ ko na kàbbar ya di toll ci raka bu jëkk ak bu ñaareel su kàbbar yi lu ëpp loola nag ka ànd ak moom ci julli ga bu mu ko topp ca yokk ba moom mi maamum daal na yem rekk ci na li mu kàbbar ya toll bu mu topp ilimaan ci di ci yokk lu ca bokkut wa mudrikul imaami ak jot ilimaan ja fi xiraatihi ci am njàngam kabbara kabbar na maa la nga xam ne xadd faataxoo rawoon na ko fi waqfatihi ca taxawam nga soo dikkee bëgg a bokk ci julli korite mbaa tabaski fekk ilimaan am ay kabbar yum la rawe da ngay wax allahu akbar mooy sa kabbaru armal nga ànd ak moom te takk bu baax li mu kàbbar ya nga ànd ak moom su ay kàbbaram matee nag ba mu tàmbalee jàng yow nag nga daal di gaaw àggale say kàbbar ba mu toll na lim ba di toll ci misaal boo ñëwoon fekk ko ci rakk bu jëkk ba mu weesu ca juróomi kàbbar ba dese ñaar nga ànd ak moom ñaar ña su tàmbalee jàng rek yow nga daal di kàbbar juróom ya nga xam ne moom la la rawe soo ko fekkoon ci ràkkab ñaareel ba itam nga xam ne bu njëkk ba raw na la kon na ngay kàbbar kàbbaru armal daal di ànd ak moom kàbbar juróomi kàbbar yi nga xam ne moo ko dese su sëlmalee ba nga jóg nag ba taxaw ci ràkka ba ngay fayee wax ji gën a wóor mooy allahu akbar ba ngay jógaale da nga cay tegaat yeneen juróom benn ko defee mu juróom ñaar wa axara yeexe na xutbatayhi ñaari xutbaam ña an salaatin wali si julli wa kabbarata mu kabbar fiihimaa ci ñoom ñaar min xayri xaddin ci lu dul limite mooy ci lu amul ab yemukaay bu ñuy ràññeel korite mbaa tabaski dañuy julli ba noppi door a xutba sopp nañu ñaari xutba yi topp ca julli ga te bañ a jiitu julli ga suñ jiitaloon ñaari xutba yi sax dañuy bëgg buñ jullee ba noppi wëlbatiku baamuwaat leen ndax ñu topp ca julli ga sopp nañu ilimaan ji mu ubbi ko allahu akbar xutba bu ci nekk balaa tàmbali xutba bu jëkk bi kàbbar bu jeexalee xutba bu jëkk bi balaa tàmbali bu ñaareel ba kàbbar ak sax ci biir xutba yi muy kàbbar kàbbar yi amul yemukaay waaye sopp nañ mu def ko lim bu tóol niki ñett mbaa juróom mbaa juróom ñaar mbaa juróom ñeent daañu sopp itam ñi nga xam ne ñoo fa teew ñu déglu xutba yi te bañ di wax leneen mbaa di séentu leneen ku dikk nag fekk ilimaan julli bay xutba dañuy sopp kon mu toog déglu xutba ya te bu ilimaan sëlmale nañ ko waxe woon bu dee kenn bu dee ñaar ak bu dee mbooloo na kenn ku ne jóg jullit boppam jullit korite ga mbaa jullit tabaski ga dañ bañ koo defaat mbooloo ndax xës nañ def mbooloo ba noppi wa yustahab bu def na sopp attiibu gët wa tazayunu ak waaj sopp nañ korite mbaa tabaski nga xeeñoo xet gu neex waaj itam waaj taay wu rafet xeet yére nag lu ci gën a yees gën a rafet rek gën a baax moo xam daa ñuul moo xam daa mel neneen bu dee ajjuma moom yére yu gën a weex la ñuy gën a taamu waaye bu dee korite mbaa tabaski moom yére yu gën a rafet rek la ñuy gën a taamu wal xuslu ak cangaay la laakin waaye ba ànd fajarin ci gannaaw fenku ku fajar ahsanu mooy gën a rafet sopp nañu ku sangu ci korite ak tabaski cangaay lu mel ne nit ñi sangoo janaaba ñoo bokk aw meloo waxtu yi nga xam ne ci la ñuy nodd nodd gu jëkk gi nag ci la waxtu cangaay la tàmbali waaye la ci gën nag mooy nga bàyyi ba fajar fenk nga door a sangu mel ne nga bàyyi bañ salaatu nga door a sangu bu fekkee sangu xaju fa ci diggante bañ salaatoo ba nga bëggee julli ji julli suba ga man ngaa bàyyi rek ba julli ji suba ba ñëw bala ngaa dem nag ca jullikaay ba door a sangu wal mashyu ak dox gaag tànk ci booy dem war rawaahu ak gont ga dañ koy firi gont ga rek waaye mooy deme ga min sabil ci aw yoon wal xawdu ak dellu seega min uxraa ci weneen yoon sopp nañu booy dem ci julli korite ga mbaa tabaski ga nga dox ak sa tànk te bañ a dugg dara bañ a war dara buñ jullee ba noppi nag ba ñibbi rekk des moom jaamu yàlla gi jeex na mën ngaa war mën ngaa dugg dara sopp nañu ba tey yoon wa ngay aw booy dem ci jullikaay ba booy wàññi ko aw ci weneen ndax yaar yoon yépp seere la su bis pencee seere la lu baax loolu nga def wa ixyal layli ak dundal guddi ga dafa def ixyal layli fekk ixyaaul layli mooy cosaan guddi gi nga xam ne ci suur sa mooy nekk korite mbaa tabaski guddi googu mooy guddi xeet sopp nañ ko ko màggal ci julli ak jàngal quran ak tudd yàlla wala julli ci yonante beeg yu baax yooyu am na addis bu ñu fay nettali di wax naa man ahyaa laylatayil iidi muhtasiban lillahi taala lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulubu ku dundal guddik korite tabaski te yàlla rekk tax sa xol du dee ca bis ba xol yi dee dañuy sopp nag julli korite mbaa tabaski ñu defe ko ca àll ba xam ne ilimaan jeeg mbooloo mi bu yoor yooree dañuy génn dem ci àll ba jullee fa jullit korite ga mbaa tabaski ga dañu sit na ku ko defee ci jàkka mbaa jumaa lu may nga xam ne day taw mbaa ngelaw lu bare bari tax mu ne su ko defee ci fu bokkut ak jàkka ja mbaa jumaa ja màkka rekk lañ ci waxal àtte boppam mooy sopp nañ jullit koriteeg tabaski ñu defee ko foofee ca jàkkay kaaba ga ndax jëmmi xool kaaba ga rek da di ak jaamu yàlla waaye fu bokk toog foofu rek danañ sib ñu jullee korité mbaa tabaski ci jàkka mbaa juma lu may nag day taw mbaa ngelaw lu bare bari loo xam ne neexuta jullee ca biti sopp nañ itam ku génn di julli ji korité mbaa tabaski muy wax allahu akbar te di ko yëkkati ca kaw bu àggee itam mu sax ca di ko def rek ba ilimaan ñëw ba ñuy tàmbali julli gi mu door a bàyyi kàbbar ya wal fitra dogga xaddimhu na nga ko jiital bi aydul fitri ci xiitu korite ges naa jàng wal fitru xaddimhu bu dee sax ko am ràññee ci naxu day jàng rek waqaddim jiitalal alfitra dogga nga xam ne mooy nattale waqaddim ci njëkk alfitra xaddim hu jële nag mu daldi koy bàyyi noona bañ koo tudd wa axir te nga yeexe alfitra dogga bi yow mi naxari ci bisub tabaski bu dee korite moom boo xëyee suba dañoo bëgg bala ngaa dem ci jullikaay ba nga lekk mbaa nga naan bañ xam ne yow mi wari nga dañ laa digaloon nga woor nga woor nga digalee wori nga wori te bañ xëy rek wuti fa ñu jullee fekk musoo dara dara mel ne ku woor bu dee korite moom loolu taamuñ ko la ci gën nag mooy nga def ko tàndarma te muy tàndarma ju ñor te tooy bu fekkee amoon nag tàndarma ju ñor te tooy tàndarma ju wow ja baax na su amul nag luy xeetoog tàndarma mën naa góox rek góoxi ndox waaye daal mu wuuteeg nag tabaski tabaski moom dañuy sopp boo xëyee mel ne ku woor bañ a lekk bañ a naan ba julli ji ba ñëw bañu ren di tabaski ma ñu indi nag lu bokk ca res wa nga doge ca loolu dañ koy def ngir roy ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu kabbiran mbir ngay aji kàbbar min zuhrihi tàmbalee ca tisbaaram nga bil jëhri ànd akuk biral itra forodin ci gannaaw ay julli farata xamsat ngir juróom wa ashrin ak fukk kabbir kàbbaral wa hallil te nga wax laa ilaha illallah suma kabbir topp nga kàbbar wa ahmad te nga sant yàlla wa tanni te nga ñaareel takbiran kàbbar wa afrit te nga wéetal xayruhu lu dul kàbbar bu dee tabaski moom bisu tabaski bi boo jullee tisbaar bu sëlmal la ca tàmbalee julli farata goo sëlmalati bala ngaa tasab ñu taamu nga def kàbbar yi boo tàmbalee ca bis bañ tabaskee di wàññi ba ba ko ñeenteel boo jullee suba ba def kàbbar yooyu nag foofu nga ko yemale ba fekkewaat ko ca déwén sa incha allah kàbbar yi nag am na ñaari net li benn net li bi moo gën a yomb te it neenañ moo gën a dëgër mooy dañ ko wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñetti yoon bi ci des nag mooy nga wax allahu akbar allahu akbar teg ca laa ilaha illallahu tegaat ca ñaari allahu akbar yoo xam ne da nga koy ubbi koo waaw ne wallahu akbar allahu akbar teg ca walillahi alhamdu xam ne ko na ngay wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ñaar net lii boo ci topp rek mu baax bu ñu nee nag képp ku ñëw farataal ci moom ajjuma rek sunnaal nañ ci moom julli korite tabaski julli tabaski yi moom bu fekkee kooka di aj duñ ko sàkku ci moom ndax day fekk muy sànni jamare xàq ba ci yoor yoor boobu loolu moo tax nag ndegam moom mu ngi ci aj rek lu nekk ca sànni jamare luy sunnaal ci moom muy dem di julli ji julli tabaski ga tumal kusuufu topp buurug jant rakxataani ñaari rakka la indana fi nun zidd dollil kulla rakxatin bépp rakka xiyaaman ab taxawaay wan xinaan akuk rukkoo in xinaa bi firu sëgg la waaye rukkoo la ci jublu jullig muuru jant boo weesoo wetar ak jullig koriteeg tabaski julli yi war yor naafila la guñu